ay marchand lañ te gis nañu lu bëree bëree bëri président mi ngi koy def mais loolu tamit egsiwul ci ñun te dañu bëgg tamit lépp loo xamante ne sumb nañ ko ci dëkk bi loolu egsi ci ñun ba tax na tey loolu moo waral ñu def euh, point de presse bii nii pour jàkkaarloog euh, Sénégal euh, xam la suñu bopp ndaxte mën nañ nekk ci dëkk bi te ñu bëree bëree bëri bëri du ñu xam suñu activité lan la te malgré que ni ay ndaw yu bëgg a liggéey ndaw yu fonk liggéey ndaw yoo xamante ne nii ñu gëm seen bopp lañ ñoo fi nekk loolu nag bi mu amee euh, ñu boole suñuy doole ñu nii nañ soutenir président ci élection yi ñu jëm pour mu mën a am ci assemblée nationale li mu ci bëgg mu am ko ci loolu moo nekkoon kàddu yi loolu moo waral suñu teewaay fii tey saa yu ñu waxee ambulant dañu gis ne ci ay coono lañ nekk parce que bëgg nañ ko ñu organiser suñu marché bi te loolu jafe-jafe la Euh, bëgg nañ aussi tamit ku ñuy jàppale ci wàllu finance parce que bëri nañu néew doole ñoo xamante ne nii ñu ngi ci ñun te tey bu ñu amoon la ñu bëgg euh, danañ mën a liggéey seen liggéey su ngeen gisee tamit euh, loolu di am loolu mooy jafe-jafe bi te loolu tamit dañ ciy tàllal président loxo mu mën ñu jàppale ba ñooñu nga xam ne tamit ay néew doole lañ ñu mën leen dimbali tamit ñu mën a téye seen liggéey na mu waree loolu mooy jafe bi gis nañ kilifa yoo xamante ne ni tey ñëw nañ. waxtaan ak ñun ci wàll woowu ñu wax leen suñuy doléance wax leen li nga xam ne moom moo ñu metti ginnaaw nag gis nañ ne président mi ngi liggéey lu bëree bëri ci dëkk bi te loolu egsi wut ci ñun loolu tamit dañoo bëgg mu egsi ci ñun parce que ñun it ci dëkk bi lañ bokk ci réew mi lañ bokk te tamit war nañu yëglu suñu bopp xam ne fii lañ nekk. comme ñun euh, ay marchand lañ euh, te tamit euh, dañoo bokk ci réew mi ñun suñu wàllu bopp ku ñu soutenir ñun it lañu bëgg. ginnaaw bu ñu ko soutenir ba pare mu jàppale ñu tamit suñuy jafe-jafe looloo tax tamit ñu bëgg a soutenir président Macky Sall pour mu mën a gagné li nga xamante ne nii moom lañ jëm muy élection législative yi. comme mbir boo xewee ku ci nekk am nga droit far fa la neex mais ñun ak ñi ñu àndal te ñu mën a déggal euh, ñu ngi leen di woo ci loolu nekkul ne nag far force la ñuy woteel président Macky Sall mais ñun daal man El Hadj Fall maa ngi woo képp koo xamante ne nii tey marchand ambulant nga. maa ngi lay tàllal loxo suñu temps moom bëriwul xëy na nag ci marché bi ñu nekk mën lañ ko mën a def parce que temps bi ñu mën a am ci jamonoy campagne bi moom bëriwul waaye nag comme jamonoy campagne la li ñu mën a am ci marché bi rek mooy wax ak ñu war a waxal. tamit ñun yaakaar rek lañuy demee parce que tamit àdduna lépp yaakaar ko lal am nañ yaakaar ni la suñ ko jàppalee xëy na ma yàlla mën na ko may ndam ci yaakaar boobu rek la ñuy demee. léegi nag ni ñu bëgg a fas yéene jàppale président de la kenn ku nekk xam na kuñ bëgg ñu jàppale ni ngay def bañ jàppale la ay marchands ambulants lañ xañ na suñ doole bari suñ temps bariwut waaye ku ñu jàppale si li ñuy liggéeyee dañ engagé li ñu daan gën a engagé woo jàppale ko ku xam marché Ocass xam ni mu demee népp xam li fi nekk engagement bi ñu mën a jël nag te président xam ko mooy ndaw ñu fi nekk di ay gone bëgg a liggéey kenn ku nekk yor sa kër borom kër yi itam fekkee bëgg nañu jàppale ko il faut mu xool waa marché bi néew ju doole yi fi nekk ñëpp mu mën leen a dimbali fas yéene jàppale ko loolu lu ñu bëgg marchand amela de buy jaay moom ko financé xaalis mu liggéey ndax kenn ku nekk bu nekkee marchand amela bëgg naa nekk ab commerçant bu mag wàccee conteneur koo xam ne jox ñu la dara da nga jóge sa daar yi ñëw di jaay ba am taabal ba am ñu si génn yor ay magasin kooku mi ngi woon mi ngi woon si boppam di liggéey am nañ mbooloo mën a dara ndax nit ñoo nekk ci marché bi ëpp nañ 3000 personnes te ñëpp ku xëy maanaam jafe-jafe yeeg dëgëraay bi mooy waral maanaam nit ñi contre président rek waaye jafe-jafe bi wàññi ko nit ñi bëgg ko wala amal njariñ nga bëgg ko di ku jéggi seetsee guñ ñu xañ na ñoom bi ñu seetsee te wax ñu li ñu mën a dégg ñu xam waaye instant ki ñu seet si la ñuy waxal te li ko def wax ak moom bu ko defee incha allah ñu def lañ man rek. ñun nag dañuy ñaan président gagné tey Touba moom lañ bëgg moo ñu indi fii tam noonu man sa ambilaay yi boo gisee danoo bëgg ñun ñëpp ñu daje ci benn. xamante ànd bokk benn say takk def leen bëgg ndax ku ne nekk fii naa kii faral kii laa faral loolu itam du ànd nun dañoo bëgg a takku ànd ak Alaaji Faal woteel président mu gañe euh, Touba loolu dong moo indi fii képp koo xam ne taxaw nga fii danoo bëgg nga woteel euh, président mu gañe Sénégal fii ci Touba noonu moom lañ bëgg moo nu taxaw woote fay suñu lépp indi ko fii woote indi dajale Fall mii ne ko wooteel lu gañe ndax tey président saa ñu wootee fii ñu naa président gañu gañu Touba gañu Touba lu nu naqari lool la noonu dañu bëgg président gañe ci lan taxaw temm nag ñun ñuy jàppale sax am na ñu ñuy jàppale ci biir ci politiciens yi am na ñu ciy jàppale ndax fii ñëw nañ fi ànd ak bàyyi àll si bàyyi àllaa nga ñuy jàppale waaye nag dañ ko dooleel dooleel nu nun ambilaakat yi bu ko defee nun dinañ mën a dimbali président gañe président rek lan bëgg mu gañe Touba moo nu fii leneen indiwuñu fi du doole junu fi indi du dara président rek leen bëgg mu gañe Touba képp ku ñu ci mën a jàppale nañu ci jàppale ku ci am ak ñaan nañu ko ci ñaan